leen ak jàmm Walf Quotidien xëy di ñu jàngatal Pastef mi mu ne tey ji yoon bëggatul sax Pastef am fu mu nooyee gannaaw tëjum kaso Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak euh, Fadilou Keita yéen ak bi gis ne ñoom ñetti ñi le daanaka yoon dafa gën a taral gën a diisal euh, lañ leen di euh, toppe ba tax na ci jamono ji bëggatuñu kuddul Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ak Fadilou Keita kenn ci ñoom mënatul doon candidat ci élection présidentielle ñu jëm te bëggatuñu kenn yëglu ci waa Pastef mun a doon candidat ba tax na ci jamono ji bi yoon mayu leen jàmm yéen kabi di Walf Quotidien moo ñu ko yëggee leneen ci xibaar euh, ci yéen kabi di L'As mu ngi ñuy dégtal jafe-jafe yi Benno Bokk Yaakaar di dund ci ñàkk déggoo dem ci candidature Amadou Ba ña ca tàmbalee fippu ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen yéen cabinet om jaf homme d'affaires bi di Arouna Dia ma ngi cay dox tànk jàmm ngir fexe ba ñoom ñëpp joxante loxo ñu waajal élection présidentielle yu 2024 euh, keneen kañu gis ne xëy na waajalagul yile wote muy Idrissa Seck seen ko ci géopolitique bi wala boog dégg ko mu wax tekk tekkaral daal amal ci jamono ji te moo ne de candidat la ci ñi war a dagaan baatu askan wi ci yooyu le wote yéen kaabi di Dakar Times desandeek ñun euh, ci euh, tànneefu Amadou Ba euh, jëm ci candidat bu Benno Chérif Assane Sagna di président boot ndawu cadre ya ne ca Casamance joxe na ci xalaatam ne yox-yoxi war naa mun a jeex Amadou ci jamono ji ngir tàmbale wàcc ci askan wi tàmbale dagaan batu askan wi ngir am ndam euh, ci élection yi ñu jëm euh, Chérif Assane Sagna yemu ca ñaawlu na doxalin doxalinu Ousmane Sonko foofee ca Ziguinchor mi mu ne euh, dénk nañ ko commune ba waaye nag sooxee na lool ci jamono ji lu ñu doon séntu ci moom gisuñu ko ci maire bu Ziguinchor naka la gisee fu amadu Ba ci boppu coalition Benno Bokk Yaakaar kii di njiital Sicap wax na ci Mamadou kase ca Tambacounda gamu ne gis na ne daal lu toll ci fukki gox yafane juróom-ñetti yëpp euh, seen euh, maire ànd nag tànneefu Benno Bokk Yaakaar li des mooy Amadou Ba liggéey lu yaatu ngir i tamit mun a jëmale mouvance présidentielle ca kanam yéen kabi di l'observateur ne euh, atta nii ñu teg ko ci bopp primature mu doon première ministre waaye nag bilan gàncax jota xayma échec daal moom la gis ne moom la Amadou Ba def fuñ ko doon séntoo def ci ca laaj yéen cabinet loole sax ñi nga xam ne ñooy woy jëfandiku yi jot nañ ko le ndax njëg yu cher ci marché bi jéemagu ci yeneen syndicalistes yi dëkkee di ñaxtu euh, béykat yi dëkkee di ñaxtu ak euh, ñeneen ak ñeneen yéen cabinet bari na ci ay poñ yoo xamante ne ñu ngi ci doon séntu Amadou Ba ngir mu def ca jéego defu ca lenn te moo ne de matal na benn at euh, ci primature gamu ne ndax dina fa wéy di doon premier ministre am déet l'observateur ne tey daanaka jëlee ko fa moo gën a jege ci jamono ji njiitu réew Macky Sall ma ngay togg gouvernement bu bees remaniement gàncax yi séntu ak matuwaayam ca jël mu ngi ci yéen a di l'observateur yéen a bi di enquête xëy di ñu enquêtal ci fitna yeeg yëngu-yëngal yi fi faral di am ci mim réew yenn saay mu jur jàmmarloo ci diggante askan weeg eh, takk der yi yéen a kaabi ndax waxtu wa jotul ñu xoolaat takk der yi nañuy taxawoo saay bu askan wi di eh, ñaxtoo ndax bari na ci bakkan ya cay rot ba ca mujjee mooy eh, jàmmarloo ga am yàggut ci diggante askan wa yeewoo ca xosanto ak takk der ya ba am ci ñaar ci ay bakkan yu fa rot enquête ne faw ñu xoolaat seen doxalin mu ngi ci yéen a kaabi yéen a di suñu làmb dox wut wutali Gambie eh, fa eh, ñaari combat yi le fas yéene wutali tey eh, combat gi war a dox ci diggante Ama Balde ak Modou Lo Tapha Tine Eumeu ñeenti mbër yi le ñu ngi leen di séntu ci samedi tey ji foofee ca Banjul jàkkaarloo gu njëkk lañ fa fas yéene amal mu ngi ci yéene kaab yi di suñu lamb yéene kaab yi di lañ koy tëjee ak musiba ga am ca Kër Mbaye Fall yàggut élève goo xamante ne toll na ci ñaar fukki at xale bu jigéen la yéene kaab yi di Papa Moto moo ko faat di faram eh, gannaaw bi ko xale bu jigéen ba xam la xamale ne eh, diggante bi na fi yem kenn ku ne na demal boppam eh, nañu tàqali ko loole nag doon du metti lool waa ji di Ibrahima Camara ñu gën koo xam ci Papa Moto paaka la jël jam ko xale bu jigéen ba ci kër xale bu jigéen ba Papa Moto moomu le nag dawoon génn Ndakaaru waaye takk der yi gis nañ ko ba teg loxo teg ko loxo ca Daga Daawur fete ca kawoon foofe ca Saloum dellusiwaat nañ ko ci Ndakaaru moom